asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bu ngeen jàkkaarloo waatee ak jataay bii ci waxtu wi ñu toll xel yu bari dana demaat ci bis bu mag di bis boo xam ne bu amutoon nooflaayub àdduna ak bopp àllaaxira du yomb bis boobu nga xam ne ca la lislaam ja di seyxuna ahmadul xadim rañaane woon ci dëkkam bii mu njëkk a sanc di daaru salaam ñëw Touba jóge fi dem Mbacke Bari jóge Mbacke Bari nag waxal boppam ne xarajtu yow ma sabti saamina asar li xidmatil muxtaari fi shahri safar takk laxasaayu liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jaamu boromam subhanahu wa taala ba def juróom-ñetti at yu manqué tuuti ci liggéey bi ba ab liggéeyam àggee ci la wax ne wallahu yadduhu ila daari salaam wa yahdi ma yasa ila siratin mustaqim ci alquran moo tax mu ne wallahu yarduhu ila daari salaam la baam Bamba wax ñëpp ne mu doon malaam bis boobu nga xam ne ci la àndaale sëri cëp di jot nit ku ñuul waaye nag may leen yaakaare alaxira jam waxoon ne sama liggéey àgg na danaa jóge ci noon yi delluwaat ci sama dëkk ba ma sancoon muy daaru salaam waaye su ma fa àggee nag sama dellu googee ical rujuhi ila xawmi saadatana wal naa yow ma jam xil xalqi nirana sama delluwaat googu may delluwaat ci sama mbooloo moomee sërite bi ma leen di yóbbaale mooy yàlla nanga nga leen ca fegal sawara te nañu tàbbi àjjana ñoom ñëpp bis boobu nag moo dëgmalaat moo tax bi mu dëgmalee sëriñ Abo Mohamed xalifatu Cheikh Mahamadul Mamoun dem ci sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Montaxa laajaat ko ci ndigal ndax fi jamono toll sëriñ Montaxa na ko bis boobu daal li ma ca xam mooy nañ ko woote ca woote ko nañ ko daan wootee yi sëriñ Abo nee na ku daan màggal si woowaat na la ak na nga daan màggal see ndax bis bii kat amuñu benn bis bu ko gën a màgg moo tax mu toog nag ak mbooleem buntu këri borom gaawaan yëpp danañ jox kaddu sëriñ Cheikh Anta Mbacke mi nga xam ne mooy wax ci turu sëriñ bi ubbi jataay bi wax ni ko sëriñ bi bëggee so noppee danañ jox kaddu gi sëriñ Modou Mamoun Sylla mi nga xam ne njàngoom alxuraan mi le 26 la war a tàmbali màggal gi doon la 30 incha allahu rabbi su noppee sëriñ Abdoul Khadir ja dana wax ci turu Cheikh yëpp su noppee nag sëriñ Moustapha Mbacke moom Cheikh Abdoul Akram mooy woo bokk yëpp kon ñun ñëpp ñu maa si déglu sëriñ Cheikh Anta Mbacke xalifatu Cheikh Mamadou Roqaya. waaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. noo ngi nuyu mboolem mbokk yi nga xam ne ñoo ñëw fii teewut di njabootu borom ngaawaan ak njabootu maam Serigne Afia ak njabootu suñ Mbàkke Buso ak njabootu maam Cerno ñu teew fi ci ndigalul Serigne Touba Serigne Mountakha kàddu yi ma Serigne Abo di jot loo day kàddu yu jafe yoo xam ne yii jafe na lool nee na ginnaaw boo xamee ne jiital na sëriñ Tuubaa sëriñ Muntaxaa ci woote bi mu woote ci màggalu Daaru Salaam gi ànd ko ak njabootu sëriñ gaawaan képp ànd ko ak njabootuk sëriñ Modou Mamoun gépp nee na mi ngi sant mbooleem bokkam yi nga xam ne dañoo bokk moom sëriñ gaawaan te jëmmi maam Cheikh Anta ak fàttaliku bis bi sëriñ Touba ñëwoon fii jóge ci nattu bi ginnaaw bu mu defee juróom-ñetti at yu manqué tuuti te bu ñu seetee bis bii nu jëm nekk téeméeri li yoon ak fukk ak juróom-ñett waaye sëriñ bi ak bokkam yi nga xam ne ñoom la woo ñu ànd di def woote bi tem na woon du ko def mukk te ñëwuñu rawatina waa kër sëriñ Afia suñu boo nee na màggal gi mi ngi ci woo taalibe yëpp nañ ci daan ñëwee bu njëkk nañ ko ci nit ñi nañ ko ñëwee nee nañ ñëpp lay woo rawatina waa administration bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo la ko dale ci président Macky Sall ak ñeneen ñi nga xam ne ñi dañoo nekk ci kujje gi ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ci bis bi ndax ay taalibe ay rek lañ di ay wëlëre kon ci ak taalibe lañ leen di woo ak wëlëre jërë ngeen jëf sëriñ bi mu ngi soññ ñi daan teew si ñëpp moo mbokki Touba la ak e, daara yi nekk ci biir tubaa yëpp ak mbokki boofeel yeeg mboppi Sam Thialé yeeg Taïba yeeg ak lu mel ne Madina ak daara yi nga xam ne ñoo daan ñëw ci màggal gi te ak waa njaareem njaareem googu ñu gën cee ràññee kër sëñ Mor Mbay Siise nga xam ne dañ ko daan ràññee ci njaareem 1 ak kër sëñ Malick njaareem 2 ak waa eh, Gede bu sa gépp ñu ngi soññ ñëpp daa ku dégg kàddu suñ kàddu ak ku daan ñëw rek nga xam ne màggal gi sëñ bi mu la koy fàttali seen jël kàddu gi turu sëriñ Abo xalifa sëriñ Modou Mamoun jox ma ndigal moo woo mbooleem seex yi seex borom gaawaan yëpp képp koo xam ne mbooloo ma nga àndal mbooloom borom gaawaan ñu lay woo ci màggal gi na nga ko soññee te waaj ko àndal sa mbooloo ñëw nañ ko daan màggal lañ ko daan màggal nañ ko daan màggal lañ ko lañ koy màggal incha allah kon nag sëñ bi nee na mi ngi soññi ñëpp eh, mbooleem kurib taalibe maanaam képp ku mbooloo nekk ci ginnaaw rek sëñ bi mi ngi lay woo nga te nga ñëw waajal ko te ñëw te ànd ànd ak eh, soññi sa sa sa njaboot biir réew mi biti réew mi ak ñu nekk ci réew mi képp ku am mbooloo te mbooloo moom wóor ne mbooloo borom gaawaan rek sëñ bi ne mi ngi lay ci woo bàyyiwut kenn. maa ngi yëkkati kàddu goo xam ne ci ndigal laa koy yëkkatee donte yëf yi noo ko bokk waaye ndigal moo ma yëkkati te ndigal li it laata may jóg wax naa ci ak Cheikh Mouhamadoul Mountakha. mu wax ma ne wax na ci ak sëñ abo ginaaw bu ma ko sëñ aboo yëgalee kon kàddug sëñ abo lay waxe ndax yaakaar naa ne bëgg lu yaatu rek ak bëgg nu mu gën a rafete moo tax ñu doon nu xaar te nun nu waroon fee fanaan si war a laxasaayu ànd ak yéen ci liggéey bi waaye bu sëñ Cheikh Anta waxee ni mu waxe eh, ci bokk gi te ci bokk gi di genn kon sëñ boo nee màggal gi seen màggal la ña di bokk woo na leen ca waaye ña ji ay seex woo na leen ca ña ci ay coloré woo na leen ca di ci woo waa réew mépp ak waa bitim réew ak képp ku bëgg maam Cheikh Anta waaw wala nga bëgg sëñ Touba wala nga di jullit wala sa yaakaar ne fi moo xam ci eh, eh, baatiniyan la wala saayrin moo xam yaakaari biir la wala yaakaari biti mi ngi lay woo di sakku moom it ñu ñaanal ko ba liggéey bi waajur yi doon def maam ye doon ko def mu man ce liggéey liggéey bu rëy eh, tanu ànd ko ak moom wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf mbokk yi ñoo jot dégg kàddu yi bàyyi ko ci kilifa yi te jóge ci sëriñ Abo Mouhamed xalifatu Cheikh Mahamadul Mamoun sëriñ Abo nag wax ne bis bi koy tàmbalee mooy dafa fas yéene luñ fi jàng ci alquran. wala luñ fi jàng ci ay xasida wala képp koo xam ne seetaan nga appel bi dégg ñuy wax loo man ci ak ñaan na ko def def ko addiyee borom gaawaan ak njabootam gam bokkal nekk ci bar barsàq ñëpp nag waaye nag ñaanalaat itam sëti borom gaawaan yi nga xamante ni bii ci at yi rek lañ tegaloo dem àjjana la ko tàmbalee ci sëñ Moor jaar ci sëriñ Maamoon Ibra Ndar ba ak sëriñ Jiili nee na mi ngi ñaan suñu borom tàbbal leen ci jannatul firdawsi wanal leen ak seen maam ju baax ja maam Cheikh Anta sëriñ Aboo nag nee na màggal gi la 30 lay doon njàngoom alxuraan mi la 26 lay tàmbali waaye xam ngeen ne dëkk bi wares na koo bale ndax màggal gi day dëppoo ak nawet mbale moom it le 25 lay doon incha allahu rabbi ñu ngi ko yëgal mbooleem daayiri set setal yi ne ci biir dëkk bi di ko yëgal it commune bu Mbàkke nga xam ne fi la ñuy màggale ak commune bi Touba ñaari maire yëpp ñu ngi leen ko yëgal kon nag sëriñ bi nee ne ngi ci soññ ñëpp nag di leen xamal ne it mbooleem lu ñuy def ci bis bi genn kilifa lañ ci am ginnaaw sëriñ Touba Cheikh Mamadou Mountakha mooy soxna Daba bintu maam Cheikh Anta fi des ci njabootu maam Cheikh Anta sëriñ Abo nee ne mi ngi mu gën a guddal aw fanam waaye nañ xam ne lépp luñ ciy def ci teewaayam lañ ciy def ndax bu doon góor a fi di leen yónni bis la 30 lay doon sëriñ bi nee ne mi ngi ñaan képp koo xam ne ñëw ngi ci bis bi la borom gaawoon waxoon ne bis bii laay woote waaju fi booy delluwaat yàlla nga daje xayra maraam tuqaa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu